Euh, merci merci de rester fidèle connecté sur le buzz du web la marchaine du net la chaîne des leaders Senbuzz TV ñu ngi leen di nuyu mbokk yi ñu ngi leen di kontaane it bu baax a baax ci àndi mbéeg wetiliku gi mbégte kontaante la ñuy am saa su ci daandu ngeen say jotaay di am mbégte ba mu làpp quand même euh, suñu jotaay tey ñu ci ànd ak le plus grand influenceur du Sénégal le plus grand Faramareen aussi quand xam ngeen dootuñu ko présenté gis image am doy présenté ko ci réew mi mais aussi doy na ci présenté ko ci rédaction Senbuzz muy suñu xarit di suñu doyen di suñu frère ñaaxarañ la moom la Senbuzz di amaak jotaay évidemment fas yéen a waxtaane li nga xam ne mooy doxalinu liggéeyam mais aussi euh, tout ce qui est actualité ci réew mi loolu waral seen Senbuzz sàkku ci moom jotaay euh, xanaa rek pour commencer mon très cher le plus grand influenceur du Sénégal ñaaxarañ la dama lay gërëm vraiment ci disponibilité bi parce que c'est pas évident sa jot permettre la ko mais waxtu rédaction Senbuzz sàkku si yow jotaay nga yombalul ñu ko ñu ngi ci am reconnaissance di la gërëm bu baax a baax ñaaw maa ngi di la jox sa wàccu waaye mon ami congaan di nuyu Amadou suma xarit di nuyu caméraman bi ak preneur ak technicien yi ñuy monté foofu ca kër ga di siyaar ñëpp di siyaar internet di siyaar mes amis loo de snap di siyaar képp kuy faramaarin di ñaanal tamit képp kuy jullit ak ku demoon màggal Tuubaa képp nu ashhadu an laa ilaaha illallaah maa ngi lay siyaar di siyaar waa pays bi ullu cheikh yi midi cheikh yi waa xaritu Ibrahima yi mhm. ñu waajal macha allah alors ren dama ni say kaddu bokk na ci li gën a doon tendance ci li nga xam ne mooy màggal gi ndax kaddu yu am solo yi nga xam ne wax nga ko jëmale ko ci jëmm ji sedd ji ci Serigne Touba sa relation ak moom mais aussi cofeel bi waa kër googu am ci yow ba nga xamee lu ñu xewle lu nekk rek ñu gis la ci lan moo ko waral ñaaw waaw loolu la duma ci gërëm suma xarit suma Serigne naan ko Serigne Cheikh Thioro Mbacke di suma xarit di suma wëlëre foofu ci New York lañ daje woon hmm. ca Bamba Day bi waa Pastef yónni ko fa délégation spéciale man ci grand Djibi le protocole de euh, le président Ousmane ñu dajewoon ci Bamba Day bi foofu à New York maam ak ñoom coloré ñu waxtaan foofu mu ne ma dafa am màggalu Baari bi moom moo koy euh, présider foofu ca euh, Mbàkke Baari hmm. ci non Mbàkke Baari ci ki ñu ko di waaye Touba. Hmm. le 10 août bi passé. ma ne ko man je quitte New York le 9 incha allah à dix à vingt heures heure de New York pour arriver Dakar le 10 à 9 heures ma ak samay valise dinaa jubal Touba directement ci Magal ba. d'accord. màggal ga ne ba ma fa egsi nag incha allah ba ma fa egsi nag dajeeg sama benn chroniqueur bu naan Assane. <laughs> Baye Assane Mesere bu Solution TV sama boy la. <laughs> waa ci moom nag noo man sama grand la ma naw ko loolu nag ci moom nag moo ma jël interview nag ma wax ci wax ju rëy jooju sama boy la Baye Assane te li ma waxoon sëñ bu mag bi nag sëñ bi tëdd sosalu ko dara li ma ko xool li mu def rek laa ko xool ndax sëñ Tuubaa ku ne xam na ni kilifa la ci yoonum mm-hmm. ci yoonum na empreinte am ci na def na def na fi wane passage te euh, ñaxtuwul yuuxuwul deful dara. absolument natt yu ñu ko teg yëpp. 33 mhm. ans mu nekk ci loxo tubaab yi. te foofu la ko suñu borom ne woon di nga yilif Touba ñu ne ma nag murid yi comme dañoo bari màggal ma ne leen murid den sëñ Touba bari nag moo tax màggal yi bari. Hmm. waaye ñu ne ma sëñ Touba moo ay man sëñ Touba mos a fekkal ko koy borom rafi yi kitaabullaahi wal Mustafa wa asaaba woo fil bahri am na sóora ba mu dem ci géej gi kitaabullaahi laan loon mu téye yàlla ji. ak euh, rasulullaahi ngeen ni mu def laan loolu ñoo accompagné woon ba mu am ndam

man aw ma xaaj ak seen ku ne xam ne taalibe Baay laa hmm. waa kër Maolana Cheikh Ibrahim foofu laa ne foofu laa soso foofu laa jokk mais yàqu sama relation ak benn tarixa nii damay dem Tiwaawan suma xarit Abdou Ndiaye Abdoulaye Ndiaye Ngalbu dama hmm. dinaa fa jaar de passage hmm. jaaraat suma kër xarit Rachid Niang Baaro borom New York City borom Jacob tamit dinaa fa jaar mais kër Abdou Aziz Ndiaye fa laay dal ci samay xarit ku ñu mel ni euh, Baye ak Yoogu Mbay Gudaamina fa la dal ci Tiwaawan bi d'accord fa jógee nag ñu dem gàmmu international nag bu danañ gàmm gàmmuwaat benn waaye na ma tax bàyyi di gàmm gàmm rek bàyyi daa ñemee fere li ñu feree moo tax Maolana di gàmmu di gàmmuwaat. ndeysaan borom 300 millions taalibe yi. Euh, am na solo très bien alors macha nga nekk koo xam ne vraiment. boo fëgg fële ci Touba ñu ubbil la ko mais dafa am koo xam ni mënuma la bañ a laaj sa diggante moom de en plus da ngay renouveler vraiment sa confiance ci moom muy suñu yaay ji soxna Mouminatou Kébé ana yi passé yëpp daan fa daje ren nag daje wuñ fa mais yaa nga fa woon lan mooy mu ab Ablaye Tage kooku suma yaay la suma xarit la suma soppee la maam moom dañoo soppante ndax nit ku baax la ko am jiite la soo moom nag kabe maanaam li ñu mën a jàng ci moom dafa bari. Hmm. li dal grande dame yi Sénégal bi yëpp dalu ko li dal les femmes branchées dalu ko surtout moom it Kébé grande dame yi ne Sénégal ñëpp ko gis day xaritoog taasukat bi kii xaritoog kii yeb bi kii xaritoog ñiy def ñiy jokkalante ñiy wàccee ci rek yooyu dañ moom amul xarit yooyu. sokhna Mouhamed Kébé ngéntewul sokhna Mouhamed Kébé mariageul sokhna Mouhamed Kébé enetaimul euh, sokhna Mouhamed Kébé anniversaireul sokhna Mouhamed Kébé yebbiwul keroog ba ma toogee biir saala mu génne euh, di génne livre yi kay dépense yi mu ne màggal 2013 lii laa defoon lii laa feroon ci màggal gi keroog damaa jooy ma ne ko soxna moom natu Kébé grande dame yi ma gis Sénégal ñu ngi hmm. rawante ak concurrence naan sama ngénte taaw yi lii lañ ma ndawtaloon yow ngay nga am courage war a génne livre 2013 ne wane ni sëñ Tuubaa li laa ko defaloon ci màggal bu tey ba tey kon loolu c'est à saluer. te doy na ci ndam rek màggal ba màggal nga koy gis màggal ba màggal màggal rek nga koy gis màggal bi ren le 23 août la woon. le 24 août ca la préparé màggalu déwén barke alxuraanu karim. est-ce que. soxna Momy am référence daal ci yoonu mouridisme ak référence la ci yoonu màggal gi ndax li muy def ci màggal gi li muy defal euh, njabootu xaadim rasul bi mm-hmm. sëñ Bamba gis na ko yonente bi gis na ko yàlla gis na ko murid yi gis nañ ko am na classe am na classe am na élégance boo boole na lépp daal référence la ci jigéenu Sénégal quand même vraiment nga nekk une grande dame ci cadre màggal dong la ko yemale màggal mooy berne jàng alxuraan jàng xasda berne nit ñi ci loolu lay def c'est dana rey nag yi ñu koy jox saam ko jox ko dëkkandoo yi jox ko ñim ñum ñim néew gi doole ñi mu takk loolu xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw mhm. ku ne dana jox paanu paanu nag boole ceeg saaku euh, saaku euh, ceeb mhm. et puis c'est très bien à préciser quand même ñun yàlla def na ñaari at yi passé foofu la daal ma kër gi du rek nit ñu siiw ñi la ko ubbilan ñëpp fay nekk quand tëjulul kenn buntam loolu man mën naa ko seede màggal dana jeex sa diw ne ko merci beaucoup sa kër laa daloon xam ne kër gi ndax ci cadre màggal donc la ko yemal mhm. wallaay ndeysaan d'accord très bien nga war a tëddee njaaxaay njaaxaanaay gis nañu la nga dem fi la nga xamee ni mooy ëttëb a loolu ñaaw ci saayir rek du ma ànd ak opposition man parti au pouvoir lay àndal. Hmm. te ku ne xam ne ne Serigne Saliou euh, Ndigal Thioune mooy xalifa général Cheikh Béthio. ma am wóllëre ak Seydina Thioune am wóllëre ak euh, Midadi Thioune am wóllëre ak Khadim Ngom ba ne ci Bordeaux am wóllëre ak ñoom Mame Diarra Thioune ak ñoom Mami Wallo su may xarit lañ. Kanta nag aw benn xarma yàlla ak euh, soxna Aïda Saliou. Hmm. mos ma ko gis mos ma ko fréquenté. mais njabootam gi lii la ñu woo ma ne ma ñaar dañoo bëgg a couvrir ñu nangam ak nangam ma ne leen man de sama ngoor may ma ma xaritoog ñoom Seydina Thioune ak ak Midadi Thioune ak Serigne Saliou Ndigal ba pare di di wëlbatiku di liggéeyal. lan moo ciy problème te juste da ngay dem pour def sa liggéey. non damay def sama liggéey mais sama liggéey dama koy def ak loyauté. tey am na kilifa gu nekkoon Amérique ma ko doon liggéeyal di ko filmer di ko defal lépp mais ndax Wally mooy sama patron tey bu ma demee ba am visa États-Unis di dem États-Unis di liggéeyi c'est grâce à Wally balaa ko Seck mhm. tey mbalax bi képp ku am xaar ma yàlla ak Wally Seck doo ma gis sa soirée doo doo ma gis ma lay liggéeyal ñi jubóog Wally ñoom laa na leen liggéeyal mhm. ndax nit da nga am gétt tey lu mu métti métti métti lu ma foo ma gisee ma sanab sama slogan mooy aka from Faramareen musique maanaam mooy ca Faramareen musique mooy sama gétt foofu laa soqee ko nit da am xaalis ne ma trop mais loyal moo dàq xaalis mhm. nit da ngay am ngor am dignité am euh, am référence d' accord yeah. pourtant gis nañu ñenn ci ay influenceurs yoo xam ne fa lañ fa lañ fa lañ. amul problème moo le monde est libre de dem fu la neex man dafa am na xam ne loolu laay liggéeyee man bari xaftaan taxul may dem ngénte bi ma yëgalul yëgal ma tamit taxul dinaa xool tamit fi ma war a dem ak xool samay nawle ak xool ñi xam ne seex naa ñoom jàmm ak am na ñoom wëllëre ku ne xam na ni Serigne Saliou Ndigal mooy xalif général Cheikh Béthio ma romb xalif général ba pare dem mm. man daal li ma xam mooy euh, xalif général des mm-hmm. euh, Ndigal ne ko yow yaay xalif général Cheikh Béthio ba jox ko ba jox ko ñaanal ko mu dem. d'accord man ci kooku laa mën a ci ci kook laa mën a référé woo. ñoom bu ñu ma soxlaa même bu ñu ma fayal dama ñëw couvrir li ñu bëgg. ndax am naa colère bu baax ak Seydina Thioune ak ak Khadim Ngom ak xam ne bu ma xamante waa ko CPT gannaaw yàlla moo tax ma xamante ñoom. alaaj Fallou Ka d' accord ñaaxarañ wax ñaaxarañ loo léegi l' influenceur du wala l' influenceur des présidents. Euh, ñaa buruxlu dafa mel ni tur bu baax congaan man samay moyen laa yor samay propre moyen nag congaan man xëccoowuma poste xëccoowuma dara man neewoon naa leen kenn mënu maa vaar moi je suis le snapper des présidents de la république man république laay topp keroog neewoon naa nag ci taxawaay intérêt laa taxawee gars yi nangul ma leen taxawaay is bu tarxee laa taxawee xaalis jonxe laay àndal man du ma ànd ak opposant parti au hmm. pouvoir laay àndal samay avec nag mes propres moyens ak élégance laa ànd ak moom xaaruma leen ci billet avion xaaruma leen ci visa xaaruma leen ci hôtel xaaruma leen ci per diem fépp fu jamaay ne ci àdduna bi ci kattan suñu borom su ma ko sama jot mais ak sama wérgu yaram dinaa dëgg sama bi avion dem couvrir ko tout récemment mu ngi war a dem Chine mhm. mais Chine gannaaw dafa sorit te toogaay bi dafa métti du dem Chine dama koy mhm. bàyyi Chine bi mais le 23 septembre ak le 24 septembre mu ngi dem ca UN ca First Avenue ca Nations Unies mhm. d' accord mais mais ñaa est ce que tamit vraiment du xaw a nekk lu contradictoire un peu parce que ñi fi jóge tamit vraiment doon nañ la may accès daan la may possibilité aussi vraiment pour ngeen accompagner leen te loolu ama amagoo ko ci gouvernement bi loolu nekkoon ma ànd ak ñoom rek xam nga ñoom boobu ànduma ak benn opposant ñii tamit bu leen fi yàlla jëlee in fi ñoom laay jéem a àndal rek mais far yi ngay def est ce que tamit dina yomb pour fii pér jëm yaa ngi fi xéwal yaa ngi fi yàlla noppi na ci man maa ngi san suñu borom alhamdulilahi rabbi alamin ku sant yàlla loolu tamit maa ngi san suñu borom d'accord très bien lenn luy actualité mooy ki nga xamee ni mooy Sidi Diop ñaa j'aurais bien aimé quand même en tant que Faramareen démb mm-hmm. tribunal ba ma la fa gisulee wax dëgg yàlla man en tant que gisuma la de kon yow ne ma fa ah, nekkoon Omaro laa gis mu communiqué ñeneen ak ñeneen non xam man du ma nag ci loo xam ne amagul verdict woo nañ wasoon waa Dakar plus ku ne woon mais nangu mun communiqué ndax verdict bu amagul woon verdict ndax dañoo mais ah, man Sidi Diop suma xarit la Sidy Diop ba kenn demulee ci biir si Zénith ba man maa dagg sama billet jóge fi dem ba France ak sama propre moyen dem couvrir ko avant première ma ànd ak moom Mantes la jeudi boobu benn nit bu ànd ak moom dem dem couvrir ko loolu man maa couvrir ak sama propre moyen di ci remercier de passage suma grand frère ñu naan ko Maro suma patron suma xarit borom suma tel musique am naa ak moom relation boobu boote woon Chine dinaa ñëw defar ko li Sidi Diop jour bi ñu ko jàppee moom ma fekk màggal Touba. Mhm. maa jëkkër vidéo ne leen Sidi nit ku baax la ku am respect la ci doomu ku am kóllëre la maa moom ñu bokk benn patron muy Matar Diop suba teel di remercier suma xarit de passage Ndiaye dollar fii ci kër gi moom suma xarit la nit ku baax la. Mhm. léegi Sidi Diop démb fii laa jógee Radisson dem fa ci bi ñuy def ñu bañ ko at libéré libéré nañ ko. Mhm. loolu nag benn doodaan la rek fàq-fàq la rek boo siwee a moytu boo siwee da a moytu boo siwee da nga war a moytu. jàpp nga ni am na ci part de responsabilité. na ci mooy maanaam amul permis loolu mooy erreur fautive la mais nit moo matul rek ndax Sénégal gis nga fi ñoo xam ne dawal nañ ba heure bii nii mosuñu am permis yàlla leen suturaal mais moom dafa siiw mais boo siwee yu bari da nga koy moytu ndax Sénégal boo siwee juum day mel ni mosoo def lu baax. mais lii paq-paq loon benn doolaan bu mu doon jaar accident de travail la. Mm. ko ci ñaanal nag mu doon tijjeekoom. Mm-hmm. ci wàllum musique ak wàcc wàllum aar yàlla ci ko yeneen buntu defal ko tawféex. Mm. aar ko sàmm ko ba yii bañ ko bañ ko euh, dalati. d'accord mais mais mais ñaaw ñi xaw a gëstu tuuti dañuy wax ni heure mm-hmm. benn ñaaw. Mm-hmm. ñaaxarañ loo bu toog tey di dawal oto. jàpp ñu ko ñu jàpp ko te amul. permis amul xam nga nag xam nga nag congaan congaan même tuuti congaan man aw ma aw permis xamu fu ñuy passé xamu fu ñuy def auto. je loolu ñoom ñi am oto ñoom ñu mën a xam def nañ erreur wala juum nañ. mais yow doo ko def. pourquoi aw oto man maa dawal wax dëgg mhm. ci volant xamu nu ñuy arrière xamu nu ñuy marche arrière xamu nu ñuy avancé sur la vie de ma yoo xam ne man. Mhm. fu ma dem ci àdduna studio loolu bi daal mooy Sidi suma frère la Sidi du man koy ñaax du man koy yedd li ma ko mën a daal mooy Sidi erreur la tiire ji lu baax nga jël ko lu ban nga bàyyi loolu laa koy wax léegi en tant que frère. très bien waaw di remercier waa suba teel ak toute la musique sénégalaise ni ko taxoo dem tribunal dem comme comme comme dëj. absolument loolu tribunal dem comme ngénte comme ngénte géwal. Mm-hmm. xumb na xumb kan mosuma gis loolu. na dem ñaaw bay dugg saal bi ñu ne saal bi fees waaye ñu ma da bàyyi bu bu procès bi jeexee nga mën a dugg saal bi li ma ne ko bu procès Sidi jeexee mhm. jeexee nga dugg saal bi mhm. procès moo fi nit ñi occasion la aussi vraiment euh, mhm. suba teel ñu encouragé leen mais aussi groupe Faramareen dañ ci am taxawaay ba am solo vraiment euh, gis nañu propos yi nga xam ne yëkkati na ko nga teew fa Faramareen musique musique xam ne ñun yéene wuñ kenn boo xoolee ba ca patron ba ci kaw ba ki gën a suufee ñun yéen wuñ kenn safaan mhm. li lay woon loolu man je suis libre comme le vent damay dem soirée Sidi dem soirée Momo dem soirée Naajo soirée yëpp laay dem te bu naqari woon sama patron du ma dem ci benn soirée li may def xam ne bu naqari woon waale bu ne woon ma hé arrête damay arrêté mais li may def neex na ko saa yu ni moom jàmm la séq ak ñëpp rek musique soo biis maanaam soow la ak biis rek mais du animosité du du rébellion du lu ñuy xam ne dañuy xaste wala dañuy xuloo hmm. mais jour bi wàlle wàcce oto yi man maa ne ko saam benn ñaata ak saam ñaata bokkul te guddi googu laa dem soirée Sidi Diop moo lay wan ne affaire bi maanaam égotrip la rek. tagg sa waykat taxul nga xas waykatu jàmbur. tubaab bi nee na dire la vérité n'est pas insulter te critiquer aussi n'est pas manquer respect à l'individu mën naa tagg waali wala ma hmm. sa wala ma ne waali moo fi ne mais loolu taxul ma xas Sidi Diop wala taxul ma xas Momo Diop taxul ma xas keneen ak keneen. yàlla yàlla moom ku ne am na ku mu la booleel mais fi nga bokk da koy sauver euh, big leen. maanaam tag tagg leen mais bul xas ñeneen ñi guddi gi waale waale wàcc oto bi guddi goo dama dem soirée si jub si jub daf ma fay daf ma fay woy neex. d'accord su ma xarit la. d'accord muy nuyuwaale tamit son manager le président manager de l'Afrique de l'Ouest Dieki. très bien. aka forum faramari musique ñaaxarañ loo moom la seen bés di am ak jotaay bala maa ñëw nag aussi vraiment ci suite spéciale bi nga am fii ci Radisson may naa la publicité bi mais bëgg naa un petit peu ñu wax ci actualité génnuk àdduna ki nga xam ne mooy Aziz Dabala c'est vrai que dafa yemoo ak màggal gi mais ñu bari ñaawlu nañ ko ci anam bi nga xam ne moom lañ ko rayee mais aussi niñ ko fekkee naka nga yëgee xibaar boobu ak noo ko dundee euh, Aziz Dabala yàlla di ko jaale mbokkam yi ko jaale waa këram di leen wax ni yàlla ko yàlla yërëm xaare ko suuf oyof ci kawam yal na sarax bi yàgg seen loxo fa mu jëm yal na ko gënal fi mu jógee yal na dee doon noflaayam Aziz Dabala nag miinu ma ko fréquenté ma ko hmm. ci aar bi laa koy gis ak muy fecc ci clip yooyu noonu ci saayeen maa nag yàlla na ma yàlla jégal sax ci baat bi ma wax hmm. ndax gannaaw wàcc na liggéey moom ni nga ko waxal lu rafet seede ko lu rafet rek mais miinu ma ko fréquenté ma ko mais daal affaire bi métti lu dinaa ko trop ndax hmm. fekk ma fekk mais nag maîtriser ma dossier bi nag te comme dossier dafa nekk ci loxo justice tamit nañ bàyyi justice def yi dañu sentir ni vraiment dañu menacé wu gis naa la sax vraiment nga sinap li nga xam ne mooy góor nag yu demee noonu. loolu man sama bopp laay aar rek. gannaaw réew moom dañ lay fekk sa biir kër wala fekk la sa biir appartement jàmmate la te bu doon dañu may jàmm benn jàmm sax mu sedd garaawul. Hmm. mais jàmm yi métti man douleur boobu attan man moom li ma jënd moom góor gi ma yor ak fajar gi moom pour sama bopp la sama bopp laa moo tax bëgg a aar sama bopp. Hmm. moom foo gis ni li dal Aziz wane ni foofu la réew mi toll. kooku mën na loolu jombul kenn yow mi mën naa dal suba mën naa dal sama mbokk mën naa dal caméraman bi dañu ñaan yàlla sàmm ñu aar ñu rek ndax léegi fekk xam nga bu doon da taxawal sax ñu jëm na kii dafa sàggan wala day taxawalu hmm. mais ko ñu fekk sa biir appartement donc euh, sécurité publique bi état bee ko yor yàlla na yàlla euh, état bi la ñaan rek ñu bàyyi xel euh, le ministre de l'intérieur ñu koy mm-hmm. ñaan rek mu bàyyi xel ci public bi comme moom moo yoroon sécurité publique bi mm-hmm. yàlla na ko yàlla kàttanal dooleel ko ba mu sàmm gaa yi d'accord coow na ñu bari am lu ñu ci jàngatee moo di nit ki léegi dool xool bu baax a mm-hmm. baax ñi lay entouré say proche ak say xarit man nag xam loolu nag ñaan ma ko yàlla mi xam naa duma gaaw ndax man ànduma ak benn ASC ànduma ndax fréquentation yëpp da lay sonal man affaire nandi di foo yëpp mënuma ko mënuma biyaar mënuma playstation mënuma blotte mënuma volet mënuma suus li ci bari mënuma ko ndax awma temps boobu quoi man tout ce qui amène de rek man foofu laa ne mm-hmm. ba ci waxtaan ni dem waxtaan guddi ni ASC e sax bu amul xaalis duma ci dem man aywa wallahi azim man lépp lu may indil money ak lépp lu may yokk sama visibilité ak lépp lu may njariñ rek ci loolu laay focus mais quant dem di ay ASC waxtaan wax ñàkk fayda yooyu mhm. wala ay politiciens ay biyaar ay suus ak ay volets yooyu yëpp new ma ci gàmm amul njariñ sax mais lu amul njariñ man du ci focus man li ma indi xaalis ak li ma ak ak fi may gagné. Mm-hmm. expérience ak wax na ma demee naa yokk sama xalaat ne. Euh, ñi ñu jot teg loxo tax nañu bari di xalaat ni li olof di léebu dëgg la paaka bi lay rey sa waay koy daas jox ko sa noonu. li jot a rusagum si enquête bi wane na loolu dañu ma ko xaw ma xaw ma kuñ ci wowul mu ngi ci loxo yoon nañ bàyyi yoon liggéey yoon def liggéeyam. Mm-hmm. ndax man xam naa luy yoon xam naa luy état. Mm-hmm. waaw lu nekk en cours daan nañ bàyyi yoon def liggéeyam rek fii daal ak une ci kàttan suñu bu gendarmerie pare eh, enquête am mhm. xam ne lii ñi ñoo ci laale wala ñi ñu laale wuñ ci ñoom ñoom duñ juub moom réew mi nag boo fi nekkee na teg ko ci yoon boo jubee da nga naan réew mi amul loi mais boo wàccee karo yi ba ñu ne la nappuj da nga ne lépp luy takk der yow la bàyyi xel loolu sama moom ko xoon ba bay xale hmm. waaw booy jubal da ngay ànd réew mi amul loi réew mi amul benn danger mais ba wàccee karo ba alkaati ne la nopp nappuj da nga lépp luy takk der yow la bàyyi xel ci xam ni loi am na gàllaaj nag wóor na baax na mais li gën a gàllaaj bi gën a baax ci doomu aadama nag mooy jub boo jubee rek jarul ngay sàngootu jarul ngay diwu d'accord ndax sëriñ si mën nañoo ñaan torop mhm. gars yi mën nañoo ñaan mën nañoo takk mën nañoo fas mais Euh, seen ñaan yëpp daanaka moo paracétamol la yor moo paracétamol dalay calmer mais mënu laa faj mais gàllaaj bi gën ci gàllaaj yi daal protection bi gën mooy jub mhm. waaw li Cheikh mun kala naan iman ihsan ñetti i yi daal boo ko fekkoo moom boo ko làmboo moom rek ngay am d'accord bu ñu demee ba toll fii ci société bi manque de humanisme nitee nga mën a tiim sa mbokk di ko rey ci loo xam ne sax souvent day nekk ci loo xam ni bu coow jibee dañ naan jaru reyluwuma. mais mu ngi faral di am day waaj a bari day waaj a nekk tendance. lan nga jàpp ni vraiment moo koy yàlla yàlla na yàlla yërëm xaare leen àjjana yàlla na doon seen wàccuwaay. Mhm. man moom moom ginnaaw sax mënu ma war a wax man naa bay rey nit. Mhm. te ñaanuma yàlla fekk fu ñuy reyee ñaanuma yàlla gis ku ñuy rey ñaanuma yàlla fekk xamante kuy reyee. Mhm. yal na yàlla sàmm ñëpp yal na yàlla ar ñëpp. d' accord euh, ñi ñuy tudd ci jëf ji kii ci gën a siiw mooy nabu lay bu ma juumul nit la koo xam ne xëy na à travers showbiz nii xam nga ko. tuuma gi ko ciy tuumaal aussi waaw moom suma xarit la xam naa ko ñu daje woon Gambie ci tournée Youssouma jigéen Ndour mu fecc fa du rëy suma xarit la mais taxul tam ma fréquenté ko xamul sama kër xaw ma këram téléphone lañu doon déggante rek. Mhm. yàlla na ko yàlla aar yàlla na ko yàlla sàmm rek. Mhm. waaye yoon tamit na yoon def liggéeyam rek. Mhm. c'est vrai que lu métti la boo xamee nit wala nga mas ko gis sax ñu accuser ko yu mel nii dina la toucher quand ci sa ci baax jigéen mhm. na a def moom ala kulli yoon dina ko def na yoon def liggéeyam rek ko loxo. yoon waay dafa nekk en dañ bàyyi yoon def liggéeyam rek. xanaa lii bett na la ci moom de wala buñ dëggalee ni moom la dina la bett ci moom ñaar tuuma yi ma man xaw moo def xaw ma deful xaw ma moom la xaw ma du moom. la suppose. même bu yónnee moom la sax loolu moom la intéresse nag ku nekk tout le monde est coupable de ses bu dee moom moo ko def moom xam ne moo ko def bu dee defu ko moom xam ne defu ko li mu mën daal mooy masawu ko rek yal na ko yàlla sàmm yal na ko yàlla aar foofu laa mën a yem moom. Mhm. d' accord mais boo amoon message boo bëgg jëmale ci jeunesse bi vraiment. pour pour sensibiliser leen ci yu mel nii xëy na ñu bañ li may ñaanal sa bopp focus gëm ay pexe mënu koo yor réew ay wax mënu koo yor réew liggéey ko yor. Mhm. nañu liggéey gëm sa bopp ku ne gëm ne li nga nekk mën nga ci réussir. àdduna lépp lu man sama téléphone bii dama ko gëm tey ba mu yóbbu ma wóor ci àdduna mhm. ànd ceeg président dem ci Nations Unies dem ci màkk dem ci fu ne àdduna yoo xam ne téléphone bii du ay caaxaan ay mhm. millions ci gagné yoo xam nga baax li ma la yàq gëm moo tax mu am ci lii te boo ci ñàkkoon fayda ci ay happy birthday ngay dem ay ay anniversaire mm. doo dem ci parlement africain doo dem Nations Unies doo ànd ak président doo dem ci kilifa doo dem ci kilifa yi doo dem xalif général yi mm-hmm. xam nga ni tarixa yi diine tarixa yi bu ñu wootee amul fenn ñu maam a xaar ma yàlla mm-hmm. bu laayee ni wootee damay dem couvrir bu murid woote dama dem couvrir bu tarixa tijaan woote ma dem couvrir waa kër Baay Ñas woote ma dem couvrir waa Njaasaan bu ñu ma dem couvrir loolu li ma ko may ba ma taxaw taxawaay ministre de l'intérieur di couvrir cérémonie officielle yi mhm. gëm sam bopp moo ma ko may super lu waaye def na ci gëm sa bopp mhm. lu waaye def na ko bu ko caaxaane na ci focus xam ne lii du ay foo daay caaxaan. c' est clair man fooyoo ma ko caaxaanee ma ko. très bien ñaaxarañ loo fi may jeexalee fi ma la fekk fii ci Radisson. may naa la mm. publicité bi ndax suñu doyen nga. non ma Radisson waa Radisson nga ko may. <laughs> d' accord mais yaa tax ma jàllale la c' est la deux ou troisième fois vraiment ma fekk la fi ñaa fii du suite spécial pour yow tamit. non man du suite spécial. man nag xam maa bëgg nopp damaa bëgg luxe nag man du dal dalu souffrance du dem fu muy souffrir man sama lépp

Mhm. macha allah ndax suñu sëriñ daa ñeme woon tukki. <laughs> c' est clair ma am mbégte vraiment na yàlla ni TV5 wala mu mel boo ma wooyee rek yow ma ñu def affaire bu ndaw ak may woo mais aw ma jot mais yow moom suma waaye nga yow lu ma bañal nit ñi mën naa la ko nangu jërëjëf frère yàlla yàlla sàmm merci beaucoup ñu ngi waajal nag gàmmu international bu Medina Baye mhm. képp naan ashhadu an laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah ñoom la ciy woon ndax gàmmu gi ethnie yëpp ñoo ci ñëw Hausa yi dañuy ñëw Yoruba dañuy ñëw mhm. waa Nigéria ñëw waa Ghana ñëw waa Mauritanie ñëw waa Niger

Mhm. fàtte ma kenn ci pays bi mhm. yal na yàlla sàmm ñëpp ñoom Cheikh Koulibaly ku mel euh, euh, Rahma mhm. maa ngi ñaanal ñëpp fàtte ma kenn Modou Ndiaye Rahma bàyyi ma kenn yal yàlla sàmm ñëpp bàyyi siis nag mu ngi waajal lu rëy nag foofu ci pays bi muy esplanade bi muy inauguré la 14 incha allahu rabbi la 14 bii nii maa koy couvrir ci kattan suñu borom incha allah dinaa mm. ñëw le 12 na defal avant première bi bàyyi siis la 14 maa ñëw couvrir ko bàyyi siis jàmbaar la ci yoon waa kër Thierno Seydil Hassan Dem ci leetul katmiya mm-hmm. bi nga xamee ne wax dëgg yàlla tariqa tijaan yi ñoo ko bokk mais ñoom tamit dañ ci am taxawaay bu am solo ñu ciy ndokkeel ki nga xam mooy xalifa bi Cheikh Kabir Dem Cheikh al xalifa Cheikh Dem aussi Cheikh Abdoul Baqi ma may la aussi waa kër Thierno Hassan Dem Dem maa leen ziar di leen ñaanal yàlla mm-hmm. sàmm leen yàlla nangu ziar bi képp ku fa ñëw yàlla noonu sa ibbeeku